leen wax ne ginnaaw bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeesal sunu taalibe ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal Serigne Sidul Moxtaar yàlla yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp di jël kàddu ci turu Serigne Bachir Abdoul Khader moom mi porte parole xalif général de Mouride mu waxtaan ak sëñ bi ne ko. sëriñ Cheikh Aziz laa fa yabaloon daaw moom laa fa yabalaat ren muy lu ma neex ndax eh, sëñ Cheikh Abdou lii day vole bu am importance ci li ñu war a defal Touba te màggal Touba day événement bu am solo wax ngeen ko fii léegi ne xaj na mooy ñaareelu événement bi gën a rëy ci àdduna bon le le plus important xaj na du du du gam-gamlee ko ak Makka ndax Makka mooy lu mën a doon rek Touba ci gannaaw Makka la bootu kon kenn du leen gam-gamloo wande du point de vue ay nit yu dem Makka ak Touba boo xoolee Touba mooy ëppale foofu ndax Makka dañ ko réglementé dëkk bu ne dañ lay jox sa quota. te suñ pays yëpp presque duñ passe ay neuf mille dix mille pays gën a nekk islamique yu mel ni ay indonésie yu mel noonu ay cent mille deux cent mille personnes donc loolu boo ko boo ko kéewoon sax deux millions trois millions presque du ko passé Touba nag dañ ko ubbi rek ku mu neex ñëw des fois ren mën naa nekk trois millions déwén mu nekk quatre millions wala cinq millions mais li am solo dëkk bu tol noonu loolu lépp dafa daje dafa am point yoo xam ni ñoo gën a am importance ci li may wax ne Touba ñeent rek la soxla jumaa baax na lool jàmm yàlla baax na lool mais dafa am lu jiitu yooyu lu gën am importance lool koo ko wax na du neex a dégg ci dégg wax jàmm yàlla balaa mat a am kenn mënta jaamu yàlla ci amul xel mu dal ndax ku yori problème wala nga wére di naan allahu akbar sa julli yëpp doo ko san doo ko doo concentré Touba dafa soxla wér gu yaram ca matee gu fa matee gu fa Sénégal gépp 35 établissement hospitalier moo fi am Touba ñun bu ñuy wax benn hôpital lañ am suñu hôpital boobee am na ay case de sant yu ko tane sax te Touba bu ñuy wax ne du point de vue population gannaaw Dakar moo moo fa ëpp une dizaine ou vingtaine d'hôpitaux waroon naa am Touba te pourtant murid yi mën nañ ko xale bi général mën na ko waaye na xaj na daal nekkuwul ci luñ luñ orienté woo suñuy suñuy effort te loolu moo jiitu wérug nit ñi moom lañu waroon gën a yitteel Touba wérug nit ñi lañu waroon a njëkk a yitteel te branche bi daa dugg ci wérub nit ñi te comme ni ko Cheikh di waxee léegi nga jóge sa kër di ziaru Sëriñ Touba di wuti lu baax yàlla nattu la ci yoon accident am sa tànk damm walla sa bopp toj kooke non seulement am na ay moyens financiers yu war a dugg mais wéradi ko nga ko dal rek loolu ak njaaxle la te nit nag bu àggee foofu la muy njëkk a soxla mooy les premier soins te ku am assurance ndax fi ne hôpital yu Sénégal yëpp koo fi njëkk foo accident lu mu garaaw garaaw boo àggee da ngay génne xaalis liquide wala ñu ne la prise en charge boo yeexee ci ñaar yooyu mën nañ la bàyyi ba nga dee kon lii du mbirum murit yëpp la li dalee ci xalif général de Mouride bëgg ko gën a tuuti ci Mouride sa mbir la dañ koo dañ koo war a dañ koo war a rëyal dañ koo war a dooleel parce que lu am importance te ñun ñi ñëpp kenn ku ne mën na laa dal wala mu dal sa njaboot wala mu dal sa taalibe kon loolu lu fondamental la gis naa benn sénégalais boo def accident en Italie moto moo ko mbëgg biñ ko mbëggee fa la ko opéti kii ambulance fekk les premiers soins opération ci biir kii bi lañ ko doon defale il était dans ko coma pendant plus d'un mois bu xaw ma sax ba léegi réveillé na wala déet mais situation est stationnaire dire que la ko dal ba léegi nii taxul mu gën a aggravé wu di gën a garaaw waaye ñun bi ñu fa demee man sob soblu naa ba wax ak médecin yi mais lim ma njëkk xamoon moo ne ma buñ toogoon plus de cinq minutes sans intervention moom addunaam moom dee na bu yàgg kon fii Sénégal bari na ñuy dee ci accident parce que amuñu les les premiers soins kon nag bu nu yàlla dimbilee ñu am ñu bokk Serigne Touba xalaat ci côté boobu waruñoo jàppale rek ne une branche la rek pour dimbala. accidenté wala mais nit ku ne da war a jàpp ne yow sa bopp lañ koy defal kon man dama cee war a bokk dama cee war a participer te li ñuy ñaax nag ñu ngi koy dale ci ñun suñ autorité religieuse waa Touba sëriñ si yu am mel nii dañ cee war a dugal seen loxo dañ cee war a jàpp xam nga ñun lu suñ cat ñun lépp lañ am xam nga dafa am benn dëkk ba am lu matal la ba pare ndax nit ñi mën a jàmm yàlla lii nag da caa bokk te yaakaar naa Serigne Cheikh Bass mi xam ne mooy port parole sëriñ bi il laa ne conscient ci lii xam na lu am solo muy nit ku mat a ñaanal koo xam ni mi ngi góor góorlu ci liggéey ak teg yoon wi ci organisation te bis bu ne yàlla demee nag bañ àgg ci organisation bu fiable bar koo bañ koo teg ci ay lobbying rek. sëñ bi rek ñornu ak lislaam ak liggéey rek léegi Touba dem ci kanam te ñun mbàkk mbàkk dem dañoo am responsabilité bu rëy rëy rëy il ne suffit rek paa que ñun dañoo bokk sëñ Touba rek ñu toog waratuñoo seetaan kenn jóge fële ñëw bëgg noo yoral suñu yoon wi loolu moom dañ cee war a taxaw man je di dis haut et fort devant la xalifa sax bu ma fa toogoon dama dama koy wax sëñ Tuubaa daf noo liggéey sëñ Tuubaa daf noo defal kon nag sëñ Tuubaa dañ ko war a taxawal ni ñu ko war a taxawal mooy ñun ñi ci bopp dañoo war a bañ lenn loo xam ne ni dëppoowuta na sëriñ Tuubaa bëggoon yoonam wi ñu ne dafa amati te loolu il faut ñu taxaw ci du du caaxaan ñun ñi sant Mbàkke laa njëkk a mettre en garde moom laa njëkk ñu bëgg a mettre en avant su ndëkk bi nañ ko jëlal su bopp en mais nañ liggéeyal sëriñ Tuubaa war na bàyyi nit ñi jóge ci àll ba ñëw lu leen neex ñu def Touba lu leen neex ñu def ko fa dem ci xalifa bi wax la lii laa bëgg fekk lam bëgg bokkut ak loola bu fekkee sëñ bi tam dafa war a am ñoo xam ni sëñ Touba da di gënal lu nag bu nit ñëwee bu la fayoon ay milliards sax te la muy def dëppoo wut ak luy jariñ yoon wi wala luy jariñ diine da ko war a bañ sëñ bi dañ ko war di conseiller loo xam ne nii njariñul murid yi la njariñul tarixa bi la njariñul islaam la kon suñ seexu naa dama ne événement yu mel ni ca Touba la ñu préparé suñ waxee ci li xam ne moo nu fi indi muy assurance bi ak santé bi ca comme ni nga ko waxee léegi nii ak ni nga ko détaillé day loo xam ne nii du obligation la war a doon ñun war nañoo dem ba comme nii waxee ne booy dem màkk da ngay am assurance war nañoo fexe amul amul amul amul amul dañ ko war obligé euh, du obligation sax mais buñ ndax xam nga doomu aadama ci bopp moo bëggul ku koy ku koy obligé ci dara ndax yàlla fi mu ne lu mu yëpp moo nu gën a moo gën a nekk sun bànneex yàlla yi mu nu aaye moo gën a nekk sun bànneex foofu li ñu digal nit doomu aadama mel noonu mais buñ ko vulgariser xamal ko nit ñi ak njariñ li ci nekk ñu tuddee ko kenn ku ne barkeelu wala addiye Serigne Touba ci ngir faj ñi accidenté yaakaar naa mën naa bana am beneen écho boo xam ne nii euh, dana dana laawaloo lépp léegi maa ngi waxtaan ak sëñ ji ma ne ko fii ne war na ñoo defar ay cartes yoo xam ni day commencer de 5 euros 10 euros 20 euros kuy demati ñu jox la ci benn takk boo xam ne boo demee ci daayira yi nga expliquer leen ko ci biir conférence yi biir waxtaan yi ba pare jox leen ñoom dëkk bu ne ñu placer seen i jaay ko ñu envoyé ko fii mu ñëw ñëw ci ci ci ci ci euh, ci euh, ci association bi donc ñun ñëpp ñoo ca war a taxaw kenn ko def fa nga féete ak la nga mën ci information ci ci li gën am solo mooy nañ fexe ba ba mu vulgarisé wu ba ñëpp xam ko yëg ko waaw loolu lu loolu lu am solo la kon nag ci turu sëriñ sëñ Cheikh Bass sëñ Cheikh sëñ Abdou sëñ Cheikh Abdou ñu ngi lay gërëm di sant ci turu murid yëpp nag ak turu sa mbokki yi mbàkk mbàkk yëpp ne lii ngay def ñun ñëpp nga ko defal ci nga bokk sëtub sëñ Tuubaa nga direct wande bi nga ko amee initiative def ko def ñun ñëpp nga ko defal nga ànd kook sëñ Jili moom comme li wax léegi nii rek man sama rakk la moom am na mat ak farlu te lépp lu ñu liggéeyal sëñ Tuubaa moom it ma ngi te boo ko déglu woon tam ci leneen nga koy def nit nag bëgg sa bopp laal bala ngaa bëgg keneen bëgg sa bopp dafa dafa dafa dafa kii ndax nit kat bu keneen comme ne la maa ngi ko bëgg di ko toppatoo wala sa mbokki jàmbur maa ngi koy toppatoo toppatoo say mbokk man du ma gëm ne ñooñee ngay ngay toppatoo bëgg nga leen nit day fonk mbokkam bëgg mbokkam d'abord leneen loo ca ñaaxaat nag ñu xam ne loolu dëgg la kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci turu Serigne Cheikh sa Abdou Khadir te ñaan yàlla journaliste yi fi ñëw ñoom nañ un rôle mooy nañ fexe ba tasaareel na ko ba ñëpp yëg ko ndax murit yëpp man cee man koo xam man man man man cee man cee man man cee accédé kon nag ñi ngi gërëm mbooloo mi fi toog yëpp te ñaan yàlla yàlla na ci yàlla def tawfeex ak baraka te barka Xaadimu Rasuul di leen nuyu ci turu Serigne Bass Abdou Khadir di ko tëjee waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf ربي الخالقين